yëpp daal ci woote gi ñu woote tey jii ndax boo gisee woote gi booy àll bi biñ koy gor ñàkk euh, néew doole tax ñu dugg ci àll bi ndax bu fekkee ne amoon nañu dañuy dem ci taax ya waaye ñàkk doole ak jigéen kese yoo xam ne léeg-léeg ñii seen jëkkër gaañu nañu ñii seen jëkkër euh, tàggoo nañu ak seen i jëkkër yor seen i xale yu ndaw looloo tax ñu dugg ci àll bi gor mais bi nu goree bi ba tey ñu ne ci bugg a def euh, def ko ay tool di ci béy bu dee ñun ñii ñii di ci def bisaab ñii di ci jëw di def ay ay ay ay ñebbe bi ñu defee loolu ba kare ñu xool ñi nga xamante ne ñoo am doole ji ñuy ñëw di tabax yow mi amul foo dëkk nag di abbu boo gisee ki am doole dem ba ca àll bay tabax yow nooy def dangay dem tam def sa néegu ñax bugg faa toog ndax ñun dañoo nekk di abbu rek di dem ak di toltalaanu fu ne boo demee nag gis li nga gor ba mu set nga gis borom doole ñëw di ko tabax yow it il faut nga jéem a def sa néegu ñax toog looloo ñu waral ñu def ñun tam néeg yi di ci toog waaye dañoo seetlu boobu ba léegi ay borom doole rek ay ñëw di indi ay kayit di ko di ko nangu ci ci suñu ci ju biir loolu moo ñu xaw a jaaxal te ñu demee moom nu mu tuddati may mun a jeng xam na ko du léegi yëf yi boo xoolee mat na ñaar fukki at ak nangam may mun a ñëwoon na fi ne forêt bi na arrêté toj bi mu ñëwaat ñu demaat ci moom mi taala mi ngeen di wax nii dem nañ ba ca moom nee na moom yónniwul kenn te ñun li ñu jaaxal ñoom ñi nekk ci ci nguur gi ñoo joxe kayit yi ndax ñun baadoolo kenn ah, yoruñu kayit yoruñu kayit yoruñu dara léegi nag ñoom kon nag nañ ñu firi mbaa ñu lettuñu loolu la ñu bëgg ndax dañuy pampamtiloo rek bu kayit borom kayit yi ñëwee bu ngeen demee police ñu jàpp la mm-hmm. yow mi amul dara dégg nga léegi nag ñun lu ñuy ñaan mooy waxuma dara sax ndax président nu mu tuddati moom ma eh, taala ci boppam moom munu fee joxe Idrissa munu fee joxe nanu waxante dëgg ñun Macky Sall ci boppam ñu ni ñu naan moom moo war a déclencher foore bi dégg nga te nee na soxla na kees dañu dimbale ñun dëkkuñu fenn fudul kees gi waaw doomu kees lañu nañu dimbale ba ñu am ay dëkkuwaay moo xam ne nag ay néew ju doole doo nga ñëwoon gor ci àll bi léegi nag patron yaa ngi nangu sunu kaw bu fekkee ne nag moom énergie bu muy boole patron yi la ñuy jal ñu ner mel ñu amul ñi kon ñu amul ñi fu ñu jëm fu ñu jëm mu ngi ñuy dimbale jigéen ñi waaye bu fekkee ne ne jigéen ji loo ko jox mu liggéey bu nga am fu mu dëkk ñu patron nangu ko kon ndax dimbalem bi dina feeñ loolu la ñu bëgg nag moom mu ñëw seetal ñu bu dee da koy déclenché mu déclenché ko ndax ñu mu mun a tàggoog forêt bi forêt tam dañuy ñëw ba defar ñu ñëw toj ku ne xam na ni jamono métti na nga forêt mënul xool ndax euh, tabax du benn bés da nga muul ba muul ya wow du benn bés ba nga yëkkati ba mu jàll forêt taxaw di xoole ba heure bi nga pare mu ñëw tojal la ko te dara du ci du ci du ci du ci génn waaw léegi nag nañu dimbale ñoom ñu ci nguur gi ñun nag Macky Sall ci boppam la ñuy waxal la ñuy waxal waxaluñu kenn waaw Mariama Sada laa tudd. salaamaaleykum mbooloo bi man man la Souleymane Diémé chargé des relations extérieures bu ma collectif euh, Mbour 4 extension. waaw doxu ñaxtu bi moo waral ni euh, dañu xëy bés rek euh, eaux et ñëw fi. dagg ci àll bi ci këru nit ñi daaneel ko raser ko ñu ne stationnement wu ay tuyaux lañ fa bëgg a def ñu métti lu loolu ñu dem di leen laaj ñu jàpp ñetti si ñun su suñu biir am amaan leen huit six cent et quelques mille dem ma di négocier ak ñoom di négocier di négocier bañ laaj leen bañ jox leen cent cinquante mille ñu bind seen procès verbal yi loo xam ne lu lu doy waar te dañoo demoon yaakaar na nit boo koy jàpp. océan bi da nga koy fekk fi mu ne nga jàpp mais du indi boppam li ñuy def moo moo leer moo tax ñu demal seen bopp ñu jàpp leen loolu moo waral dox dox ñaxtu bi beneen chose bi ñu waxtaana foofu ba ñu yaakaar ne la ñuy yem ñu jékki-jékki xëy dagg presque lu mat ay deux hectares ci àll bi jël jël jël suñu béton jël suñu suuf jël suñu ciment defar ay bor borne yu rëy yaa ngi nële xamuñu nag lu leen lu waral loolu li ñu gën a métti ci mbir bi mooy waa eaux fore forêt fore et ku xam eaux et forêt xam ne eaux et forêt mooy àll est-ce que yaa ngi dégg sàmm garab lañ ko xamee mais xamewuñu ko daaneel bañ fa demee lu ñu wax danañu ñoom du ñu daaneel àll du ñu daaneel kër ñoom dañuy def état des lieux bu ñu defee état des lieux ba pare ñu yóbbu ko Descof Descof ñoom mooy décider li ñuy def à notre grande surprise ñoom ñoo ñëw di daane ay ay agents eaux et yi fi nekk di ñëw ne ay eaux for forêt di def sabotage parce que yenn yi sabotage la parce que li Aliou Sow def rek moo méngoog ñoom li ñuy def Aliou Sow ñëw ñu indiwuñu sommation ñu dara di njëkkante daaneel suñuy bâtiment ñu dama moom ci yoon mi ngi mi ngi folate dans leer ndax affaire de buur la ñuy lancé président Macky Sall moom moo fi waxoon ci discours am ne bëgg na Sénégal bu nekk mu am toit ñun ñu yombalal ko ko wutal ko suñu bopp wut suñuy toit bopp di ci góorgóorlu mu war ñu see jàppale moom la ñuy lancé message bi parce que xam nañ ni moom rek moo ko mën a déclassé di remercier Talla Sylla la parce que mi ngi ñuy jàppale di dalal suñu xel ñu ngi jot nag information bu nekk nag ñu ngi koy jot information bu nekk ñu ngi koy jot que ni fii déclassé nañ ko ñoom dañuy ñëw pour jàpp parce que noo ñëw ci si forêt bi nga jël benn espace bu ndaw ne lii dama koy defar dama koy aar. yaakaar naa forêt buy aar du dagg garab mais seen liggéey dañ koo jéggi bay dem di daaneel bâtiment te ñoo daaneel bâtiment loolu moo waral sunu sunu njaxtu bi plus de deux mille cinq cent personnes ñu ngi fi seen numéro téléphone sen carte électeur ñoom seen carte d'identité lépp mi ngi ak ñun on est bien organisé ñun nag Macky Sall président mag Sall rek la ñuy wax ak amuñu keneen ku ñuy wax ak ku dul moom parce que situation moom rek ko mën a décanter te bëgg nañ nag mu jàppale ñu yàgg nañ fi trop ndax ba muy falu avant muy falu ñëw na fi mun nañu votal leen ñu votal leen ma boo leen ma votelee bu ma gañee déclassé leen àll bi loolu mi ngi nekk resté gravé dans notre mémoire ba léegi ñu ngi ko koy fàttali xëy na da koo fàtte rek parce que ni dëkk bi demee la ñu ngi ko koy fàttali buñ si mënee jàppale mu jàppale ñu si waaw ndax suñuy toolu maam la woon suñuy nijaay sunuy papa ñu dagg ko dëkk si fi lañ juddoo fi lañ màggee tamit loolu leer na fi ñi fi ne ñëpp rek lettre yi nag lettre sa jar ñu koy wax parce que lettre yi buñ bonee forêt lettre amu amatu fa droit lettre amatu fa droit jamono Idrissa Seck lañ ko fi dugaloon lettre yi baaxut fu ñu dem dañ naa ñu lettre yi baaxut leet yi baaxut kon lettre yi war nañ cee wax dem nañ ba ci préfet ñu wax ñu gaa dañoo def erreur dugal lettre yi lettre du yoon Pascal la même chose fu ñu dem yëpp autorité yi ñu dem yëpp loolu la ñu wax ñu ñaan Macky le président Macky Sall mu jàppale ñu si ak soxnaam comme que soxnaam day def lu baax day def social fii social rek a fi nekk fii social rek a fi nekk nañ ñëw jàpp fii ok.